journaux yi xam nga li ñu wax loolu amul loolu loolu maître Moussa Diop wax loolu ça n'existe pas au Sénégal loolu mënul nekk depuis temps indépendance ba tey mosuma fi dégg man mosuma fi dégg ñu wax fi waxu jamaa oui mais écoutez permis d'exploration. waaw mais mais waaw waaw xam naa exploration la wax waxul loo xam ne ni par exemple mu ngi nii tege waxul loolu. mais loolu man dama ko mësul woon dégg au Sénégal. pétrole dégg naa ko fi. te pétrole bi même balaa ñu koy euh, explorer ñu koy waaj explore explorer daan ñu dégg ñuy wax ne bërëb sàngam am na pétrole bërëb sàngam am na pétrole waaye man jamaa man mosuma dégg ñu wax ne au Sénégal jamaa am na fi loolu masuma ko dégg. judduwuma xëy na après indépendance laa juddu mais bi ma juddoo ba tey boog mosuma koo dégg. waaw ah, mais xam nga satu li am solo mooy kayit yi mu yor ni dañ koo signé ba def ci le soo de la République kayit yi wér na am wérul man je pense que loolu mooy. waaw loolu laa la wax lool lool laa la wax xam nga xam nga moom par exemple loolu am na neneen noo xam ne nii mënoon na ko defee kayit yooyu est-ce que wér na. wóor la ne ne wér la wóor la ne signature yi ci war a nekk yëpp moom moo ci nekk xam nga loolu xamuñ ci dara moom lu mu wax sànni la rek fii Sénégal fi mu toll nii ci foofu la ñu toll kon Sénégal xam nga fi mu toll nii wax sànni moo fi am waaw nit ñi dañuy wax di sànni ah oui daf fi bëri dara du leen ci fekk